léegi ni sama grand la sama grand la sama mag la sama conseiller la sama xarit la sama lépp la xam nga démb barki démb démb rek la doon ñaanal yaayam yàlla na ko yàlla nangul ñaan falaa laa jógee man amoo benn problème ak nit kuy dund comprendre nga mais yéegi nii dafa nekk Joal def ay jaloore nekk suñ mag xam nga ku la féeri ku la jiitu si néeg bi xaw ma war waaw néeg bu lëndëm war la wax ne fi nga toog te xam nga lëndëm moom làmb doy na ci suñu ay néeg bu lëndam dugg ci làmb moom xam nga yaa ngi ci lëndam waaw léegi nii sama lépp la dafa baax ba bare teg si soo demee da lay conseil ay conseil yoo xam ne da xalaat ne lii àdduna bi yegg seegu fi comprendre nga. sooy jël ko léegi nii lu may def da koy yëg su may jël combat da koy yëg su may waajee bëree si guddi gi damay dem ba këram toog ñu waxtaan yenn saa sax moo ma naan demal ñibbi da nga am combat suba mais xam nga man moom damaa xaw a waaw mais moom moom du la conseillé ay nii ngay bëree parce que dana naan carrément man aw ma habitude naan mbër demal nga bëree nii comprendre nga mais da nga xam ne làmb la xam nga. yeneen mbër yi dëkk Joal comme sama booy la samay booy lañ Ablaye Ndiaye sama booy la sama rakk la waaw mais xam nga yëg nii ñun ñëpp mooy suñu mag mooy suñu kilifa. xam nga waaw waaw waaw ba pare ñu bokk Joal teg si ba pare xam nga yéegi ni soo nee làmb ne yéegi ni loolu mooy géej gi am na ndox laal soo amee combat demoo ci moom day mel ni yow sax am na lu manqué ci yow. nga waaw ba pare nga dëkk Joal mu dëkk Joal waaw ba pare muy wax ci man lu nice waw ba pare man ma am benn mbër muy moom man Yékini rek laa faral. maanaam mooy sa mbër. mooy sama mbër man Yékini kese laay faral mooy bëri maanam ma am perfection. mais même suñ bokk ku ma bokkal daay waa suy bëre sax du ma am pression. loolu mais waaw waaw mais xam nga loolu yàlla moo koy def si nit waaw yàlla mooy xool nit xam nga. dugal ko sool man comprendre ma waaw. moom laa bëgg waaw moom laa bëgg mooy sama. mooy sama idole waaw mooy sama idole waaw. waaw à part dañuy toog di wax yoo xamante ne concerné wul làmb waaw. mais xam nga nit moom soo gisee nit ku baax moom normalement da nga ko war a approché. xam nga mhm. léegi noonu la fa demee quoi si maam waaw. moo tax maa ngi maa ngi si profité di si gërëm waa Joal yëpp waa Joal. idole Yékini mooy sa idole. point faral naa ko mais du sama mbër parce que xam la du sama mbër sama rakk la xam nga sa rakk far force yu bëri da nga koy ñaanal mu daal force. pas far quoi am na yoon du far. ma Yékini man ma Yékini maa ko faral waaw. bàyyi bëri am na lu mu wàññi ci làmb Yékini. looloo rey làmb ji. bàyyi mbër yi waaw yoo xam nga yoo xam nga ne Yékini rey làmb ji waay. Hmm. yow sponsor yi jël mbër yi yóbbu leen def seen teg seen tarak taf seen tarak ba mu lay ñëw invité la invité d'honneur nga ñëw bàkku bàkku ba bëgg a dee ah sponsor ñu fay la ñu dugal seen poche yow nga ñibbi yow yaa ma sa gis Yékini def lool wala tey jën def ko yaa ko ma sa gis. moo Lo bi nga xam ne nante la sax du ko def mais mbër yi maanaam nañ yeewu yenn mbër yu mag yi nañ yeewu mbaa ñu siw ñi. xam nga gars yi woo la suñu la wooyee ci benn manifestation fay ñu la dara yow ci marketing lan lay fayee sa xaalis a ce que comprendre nga est-ce que yaa ma lay wax yow marketing lan lay fayee sa xaalis ma def fii benn kiwul la l'an 2000 l'an 2000 production xam nga woola ne la invité naa la dem def fee chaîne bi caméra yi toll fee di jël marque bi ngay bàkkoo fii léegi nga war a bëri dimanche c'est pas responsable di lay woowaat blouson bi nga waroon bi nga waroon sol pour pour ñu fay la sa kase feccoon nga ko si soirée bi ñëwoon nga ko soirée bi génn marque affaire bi jàll na loolu moo leen rey ay Tyson ay ni loolu lañ doon bañ man moo tax Yékini mu nekk sama idole Tyson nag sama da dama koo bëgg moom parce que ji nga ji nga nit ñu muus ñi dañoo war di maanaam dañoo war di am ñu di torox quoi nit soo yeewoo waroo torox man Yékini moo war am ci loo jàpp te t-shirt unique la lay solal ñëw taxaw su affaire bi affaire marque marketing mu romb tey jën boo ko bëggee fecciloo benn làmb da koy fay mais yeneen ñi leen remplacé nag dañoo ñëw gars yi leen invité ah, ñi nii dañoo dëggalul ñi laa la wax ñoo ñoo rey làmb ji man yéegi ni ba daanoo jour boobu laa njëkk ne dee na sama yi bëri naa ko ji dem na dee parce que gars leen di woo feye ko ay cinquante ay centaine de millions xam nga ñëw invité la di lay wëy naan la kii mooy l'an 2000 doomu Paate Ndiaye doomu Géwal Ndiaye ngay bàkku rëjëjëjës waaw gi gi non